شر ما خلق من شر حاسد من شر النفاثات في العقد من شر حاسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ñett ñu dagg ko mu nekk juróom-ñaari quartier quartier bu ci ne bien sûr mu am délégué de quartier yàlla def ñoom ci seen baax ñu jël ma nekk le coordonnateur des délégués de quartier de Nord Foire loolu moom moo tax ma am sañ-sañ toog fii di wax ci seen tour di wax ci turu population Nord Foire ah euh, lii nag dañ koy rafetlu parce que bi ñu nee dañuy def projet bu toll nii réunion bi ñu def dañuy Nord Foire lañ koy tàmbale euh, donc donc dañu dañu sas bañ ne bulu parce que mën nañ nañ ko commencé Ouest Foire mais la ñuy commencé Ah, suñ ko defee ba mu baax ñu doog a continuer ci quartier yi ci des kooku sas buñ sas waa Nord Foire moo tax mooy tam ñun waa Nord Foire dañ ci war a jàpp parce que lu nga xam ah, ko bëggee damay nuyu waa euh, la maire bi nga euh, moom fi indi projet bi ah, parce que comme ni ma ko waxee mënoon na ko jël commencé ko feneen booba tam dañ ci am suñu wàll mais ñëpp daje ñi ni ci yow la ñuy joxe que loo décidé loolu aussi jar na gërëm jar na sant waa UCG aussi xëy na tey moom dañuy indi leen très grands moyens wante nag wax dëgg yàlla yàgg nañu liggéey ak ñun parce que école bi ngeen nekk nii mooy école japonaise bi euh, ñoom mu mosu ñu cee génn seen loxo waa noo euh, ci biir Nord Foire si ñu cee génn seen loxo xëy na nag tey projet bu ñëwee day ñoom fekk li nga xam ne ñu ngi ko doon def ñu gën ko yokk ah bu boobaa aussi dañ leen ciy gërëm di leen sant te bu ñu ne UCG aussi xëy na ci kaw lañ koy jëlee ba ñi nga xam ñu ngi ci suuf ñu yore liggéey bi ñëpp li ñuy gërëm ñëpp li ñuy sant euh, ci turu waa Nord Foire ci euh, donc maa ngi leen di dalal di leen souhaiter bienvenue euh, di leen wax ni comme ni ko sen coordonnateur bi waxee désormais ku ci ne bu bëggatee certificat de domicile na nga ñëw délégué quartier boo mën a dem dañ la def euh, jox la jox la certificat de domicile wane ni yéen waa UCG désormais vous êtes des citoyens de Nord Foire. projet fi au niveau de Nord Foire man lañ fi affecté moo war a ñëw. pour durant cinq jours partager ko ak vous ànd ak euh, waa population Nord Foire demander seen implication liggéeyandoo ak ñoom pour que ñu rendre Nord Foire top zéro loolu moo ñu fi indi. donc may wax ne euh, initiative UCG tey dafa nekkatul ci rek jël tonni mbalit tibb mbalit yóbbu Mbëbës déedéet dañu innové indi ay projets yu baree baree bari bokk na ci projet yooyu quartier propre tey ñu war ko dérouler tey tey ji nekk cérémonie de lancement bi mu nekk un grand jour pour nous. donc kon ñu ci saluer ICG di ci saluer le maire de la commune de de de Yoff di ci saluer monsieur Ibrahima Fall mi nga xamante ne depuis boobu ba tey ménagé wul aucun effort pour di ànd ak ñun ci lépp. may wax ne ci phase 1 bi njëkk nañu ñëw rencontrer tout ce qui est autorité rencontrer tout ce ressource ci phase de bi def nañ les 72 heures de Nord Foire des 72 heures de Nord Foire def nañu pin bi. ànd nañ ak cartographe bi ànd ak CST yi ñu ñëw def pin bi xool fépp fu nga xamante ne nekk na point noir ñu jël ko tey ñu ñëwaat tey ci phase 3 bi muy cérémonie de lancement bi ñu war a fas yéene tey débuté phase 4 bi muy li nga xamante ne action lay doon réaction lay doon sama gars yi di ko tuddee complexe ñu war a def le les les les 45 jours de Nord Foire su dayul ñu dolli lépp lu nga xamante ne luy mbadet la lépp lu nga xamante ne luy tilim tilim la lépp luy grava lépp luy luy désensablement ñu raxas ko ba mu set wecc def Nord Foire mu nekk quartier clean merci beaucoup. Euh, une question s'il vous plaît est-ce que campagne bi tamit euh, euh, yaatal ngeen ko parce que bu ñu seetloo dafa mel ni waa UCG kese ñoo fi nekk ak ñi nga xam ñoo di waa mairie de parce que jeune jeune Nord Foire bi ndax. sensibiliser ngeen leen. lu jëm ci wàllu sensibilisation bi am nañu service bu nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu sensibilisation bi service boobu dañu nekk hors de Dakar ñu ngi nekk dans les régions parce que ñu ngi déroulé foofu wax naa leen ne la ICG nekk ay ay projets yu bëree baree ñu ngi déroulé foofu noonu Sénégal zéro déchet. actuellement boo leen nekkee boo leen di suivre actualité bi di ngeen leen gis ci bi xamante ne tey rendre nañu Kaolack très propre ñooñu noonu dinañ ñëw ànd ak ñun dugg ci biir quartier bi def porte à porte bàyyiwuñu ken association CEVAC yëpp y compris ñu àndandoo ak ñoom boole liggéey bi boole ak ak sensibilisation bi su ko defee lépp mën a mën a mën a kii on demande l'implication de toute la population maa ngi tudd Ibrahima Fall di adjoint au maire de Yoff ñëw tey jii donc si cérémonie bi représenté monsieur le maire Abdoulaye Diouf mu nekk cérémonie bu am solo cérémonie de lancement du programme quartier propre tey jii ñu koy lancé fii si terrain basket Nord Foire mais euh, dans l'entendement euh, le programme yamul fii rek Nord Foire c'est un programme qui couvre toute la zone il y a Nord Foire il y a Diamalaye il les Apexi donc c'est un programme extrêmement important du point de vue euh, déploiement matériel bi nga xamee ni moom la sunu partenaires yi di def maa ngi si ñëw maa ngi si ñëwaat mais aussi du point de vue géographique ak zone yi nga xam ne moom la ñu tànn dinaa si ñëwaat euh, di yëkkati kàddu nuyu monsieur le maire nuyu population bi teg si loxo délégué euh, Sidi baara tey jii moo fi toogal waxuma quartier Nord Foire rek mais toute la zone de Nord Foire di koy nuyu bu baax di koy remercier si taxawaayam aussi parce que Euh, le programme commencé wul tey tey lancement la mais am na liggéey bu am solo boo xamee ni defoon nañ ko avant liggéey bi c'était un travail d'identification et de sensibilisation identifier les zones yi nga xamee ni c'est des zones sombres ñoom seen langage zone sombre mooy zone yoo xamee ni dañ koy war a nettoyer ba mu nekk zone bu claire ànd ak population bi identifier ko mais aussi dugg di sensibiliser nit ñi pour que programme bi am une appropriation de la population et que appropriation boobu mooy permettre in fine ñoom bu ñu liggéeyee ba dem population bi mën a continuer liggéey bi parce que ça c'est extrêmement important parce que il ne sert à rien de faire un travail sur trente jours après ñëpp taxawaat di xoolante et que situation bi dellu si waat ni meloon donc loolu aussi euh, maa ngi nuyu sunu partenaires yi mooy waa UCG tey jii am nañu kontante bu mag a mag a mag ñoom ñëpp ñoo ngi fi euh, si seen responsable mu di kebe le responsable euh, régional moom aussi mu am si taxawaay bu mag mais ñu permettre ma rek ma remercier quand même Déthié Déthié Abdou Khadre ak mari ak toute l'équipe yi nga xamee ni ñoo daan ànd fii di liggéey parce que ñoom parfois sax yow boo xawee yox-yox yi sax wala tayal sax ñoom ñoo lay yee buux la buux la si affaire bi mu mel na ñoom sax ñoo nu gën a yàkkamti la projet ñoo ngi leen di remercier bu baax et que vraiment monsieur le maire kontaan na si seen taxawaay liggéey bi nag nii la rek ñun mairie lépp lu ñu mën a def uti ay partenaires uti ay nit yoo xamee ni mën nañu lënkaloo ak ñoom au bénéfice de la population dañ koy def si cadre yu bëree def nañ ko si fànn yu bëree def nañ ko mais tey jii ñoo ngi si liggéey boo xamee dañ koy def ak waa ICG. ICG kenn du ko présenté ti kenn kuy seetaan télé temps yëpp gis nga ni liggéey bi ñuy def Kaolack liggéey bi ñuy def un partout à Dakar au niveau de l'aéroport tey jii ñoo ngi fii ci zone bi donc seen taxawaay ñoo ngi koy rafetlu parce que ICG dafa ñëw indi beneen xar kanam bu bees indi waxatuñu rek tuur mbalit dem seen yoon. mais dañuy dugg di sensibiliser dañuy waxtaan ak nit ñi pour que au moins comportement yi mën a changer parce que loo mën a liggéey te changé wuloo comportement yi sa liggéey après day desaat donc ñoo ngi leen di remercier vraiment si fànn boobu tey jii monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr sant ma ma ñëw fi euh, pour mën a présider cette rencontre moom si boppam moo ko bëggoon présider mais ak euh, vaccination bi ñu nekk te mu war ko superviser am si taxawaay bu mat sëkk loolu moo taxoon mu ni man dinaa ñëw taxawal ko fii ànd ak fii euh, As Ndoy ànd ak feek le euh, l' agent envoyé Ndiaye Diène ba pare ni que booy ñëw indaaleel quarante cinq à peu près cinquante agents de surface pour wane ni ñun aussi dans le cadre de la gestion municipale amoon nañu ay recrutement ay femmes yu bëri ñu leen recruter c' est des braves femmes maa leen di remercier bu baax les agents de surface parce que ñoom suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi leen di gis ci terrain bi ñuy bale di nettoyer di désensabler loolu mu nekkoon loo xamee ni dañ ko waroon noter donc ñoom aussi ñoo ngi leen di wax jaaraama parce que liggéey bi ngeen di def am na solo trop bu leen ko xeeb te bu leen ko kenn xeebal donc ñoo ngi leen di remercier si liggéey bi ngeen di def ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax si liggéey bi ngeen def tey jii ñu ñëw fi pour def lancement am na liggéey bu ñu defoon waxoon naa ko léegi en amont lancement bi dana ñu permettre dans tous les quartiers parce que def nañ identification yi ba pare document baa ngi fii partagé nañ ko ba ñu d'accord si li nga xam ne moom lañ tënkoon dans toute la zone Nord Foire que ce soit Diamalaye Djily Mbaye APEXI euh, APEXI yi nekk fii yëpp ak Nord Foire dinañu dina nu enlever les ordures dinañu enlever euh, dinañu désensabler mbalit yëpp dinañ ko dindi dinañu désen euh, dindi suuf si nga xam ne moo nekk si tali loolu moo am solo parce que dañu bëgg liggéey bu jeexee dëgg-dëgg population bi gis ni seen catre de vie am na amélioration parce que c'est ça l'objectif donc loolu ñoo ngi ci en partenariat avec la mairie bu ñu commencé fu ñu teg seen tànk mairie teg fa seen tànk accompagner leen donc ba liggéey bi di jeex donc vraiment ñoo ngi leen di gërëm bu baax Kébé ñoo ngi lay remercier di lay gërëm yow ak sa équipe bi yëpp di lay wax ni on est prêt à travailler avec vous et on est très content si li ngeen xamee ni moom ngeen di def donc incha allah monsieur le maire xam naa ni euh, ñëwul tey mais comme programme bi ça va s'étaler sur presque trente jours dana am jour boo xamee ni dana leen fekk sur le terrain ànd ak yéen gën leen encourager gën leen ñaax si liggéey bi donc vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. salaamaaleykum man la madame Ndiaye Safi Kanté responsable Djily Mbaye may door di nuyu monsieur le maire lay Diouf Sarr di ko wax jërëjëf ci projet UCG bi mu ñu indil jërëjëf monsieur le maire Abdoulaye Diouf saar ci suñu tur ak ci turu jigéenu Yoff yëpp ndax lii du lu tuuti ku seeti UCG seet ay collaboration indil la ko pour sa quartier seet danga koy wax jërëjëf donc jërëjëf monsieur le maire. di dellu di nuyu monsieur le maire Ibrahima Fall. mi fi toogal monsieur le ab lay juf saar di ko wax moom it jërëjëf ci taxawaayam taxawaayam rafet na di nuyu délégué de quartier bi ñu dalal di ko wax jërëjëf di nuyu waa Nord Foire yëpp lii nag dañ cee bég tey solos bés bi moom lansement la lancement boo xam ne dafa am solo parce que moom mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy dooree liggéey bi liggéey bu am solo te ñun jigéen ñi nag takk nañ suñu dënn fas yéene ànd ak yan jigéenu Yoff takk nañ seen dënn fas yéene ànd ak yéen ci liggéey xëy na du ñu bale waaye lépp lu ñu mun ci wax ci nit ñi ñu setal ñu bañ a tilimal bu ñu liggéey ba pare danañ ko def lépp lu ñu mën ci accompagnement sensibilisation danañ ko def na seen xel dal waa UCG monsieur le responsable de l'UCG le représentant ñu ngi leen di remercier au non de toute la population de Yoff ñu ngi leen di remercier di wax vraiment gis nañu li ngeen di def Sénégal ci programme zéro déchet programme zéro déchet nag def am solo ndax président Macky Sall dafa nekk programme bu am solo ci moom daf ñu ne nettoyé leen ba mu set bu ñu paree ñu ji ay garab ji ay fleur toppatoo ko ñu am développement durable kon monsieur le maire Diouf Sarr bu ci nekkee ay service compétent am yëpp nekk ci ñun dañuy def lu dul bég lu dul kontaan suñu xel dal kàddu yooyu laa ci bëggoon sànni di balu ak encore une fois di leen wax jërëjëf